waaw man gis naa dis euh, bi ma déggee loolu moo ko déggee mu gisee ci média bi comme ñëpp euh, yàlla def na ma gisee imam Ndao ñoo nekkoon démb démb ñoo nekkoon euh, Saint-Louis ci benn conférence am dañuy invité woon foofu benn conférence macha allah sama imam bi ma laaj ko mu ne moom jotagul benn notification c'est-à-dire jotagul lenn loo xamante ni mu ngi jógee parquet quoi mm-hmm. loo xamante kayit koy wan ni ko dafa war a taxawaat ci kanamu juge bi mm-hmm. maam rek message boo xam ne man yàgg naa ko wax ne Sénégal léegi am na ay jeunes Sénégal yoo xamante ni dañ leen jàpp tëj leen ci kaso bi xam nga tax ñu tëj leen juste parce que ay ibaadu lañ parce que gëmuñu sëriñ quoi état du Sénégal utiliser loolu pour am ay subvention subvention yoo xamante ne ni français yi ñoo ko defoon ci lutte contre terrorisme ñu jàpp ay doomu jàpp tëj ci kaso bi Imam ñetti atu yàlla lañ ko tëj tëj ko ba mu neex leen ñu bàyyi ko ne ko defoo yëgoo tino bàyyi ko mu ñibbi tardeel ko te bi ñu koy jàpp 4 heures du matin lañ ko fekk këram yónni gendarmerie wàccee fa contingent gendarmerie ñu ñëw fekk imam boo xam ni tooñu jàng la xam ak jàngale ndongo daara yi tudde ay 300 ndongo 200 ndongo ñu tas daara yi tas saako ceeb bi di ko tuur jàpp imam bi mënu tegu ci kanam njabootam xale ñu takk ko yóbbu tëj ko ñetti atu yàlla gis waa loolu Macky Sall moo ko bu nekkee naan ay Macky Sall ko gunge ay mu yeggale mandaam seet Macky Sall ni muy yeggale mandaam ci kawam la ko yeggale moom ñu loolu lañ doon bañ parce dañu xam kan lañ seex te lii bi ñuy xeex boobu benn parti politique nekku dañu xam kan lañ amal affaire Macky Sall du nit du nit te ñàkk nekk nit moo tax mu jàpp sëriñu daara ñu tëj ko ba yoon nangu ni sëriñ bi deful dara ba ñu jugé ko ba mu leer weeru lëbb mag ba jaaw weeru koor muy wor nga koy taxawloo chaque jour muy taxaw nga koy jugé di ko wax ay yu ñàkk fay la waaye la moo tax nga nekk nekkoo laayee nag la moo tax man maa fekkee procès yëpp la moo tax nekkoo tijaan kon sa papa lu tax nekkoo xaadir rek yooyu lañ ko doon wax lu tax nga yoroon xaalis bi yëpp lu tax kii ba mu ñëwee si loo xam ne taxaw ba ñu dem ba xam imaam bi dafa set taxul dara ñu bàyyi ñoo taxaw wax ni carrément ni imaam bi taxul dara ñu bàyyi ko mu dem bu doon Macky nit la day taxaw dem jël xaalis bu bari jàppale imaam doo jox ko ko ko ba pare tabaxal ko université ndax jàngalkatu alxuraan la ci procès dañuy comprendre ndekete kii adduna mi da ko pour jàngale service Sénégal ba léegi ngi dëkk ay kilomètres kilomètres dëkkul sax ca Kaolack ca biir mu nga dëkk ca kilomètre ay kilomètres yu sori ci àll bi la dëkk di bay di dundee yor ay ginaaram day bay di dundé lekul subvention mënoon na def comme Imra Arab yeeg ki nari ibadu and ak nari yi de ñu ni jox ay subvention dem ay ki def kay concours yoy def ko de day bay di dundé lekul juroomi deureum kenn amul ko gëna set imam do Sénégal mu nekk fi di gor gor lu ba légui di jàng ñu yoon ñu ne waat yaa yow dañoo toog boo xool procureur dañoo parquet dañoo defar appel pour woo pour mu taxaw ci kanam baar bi nañ seetal ak ñoom fan lañ jëm ak ñoom lenn moom naa ko wax mu leer imam ndaw moom imam imam ndaw bokkul ko affaire diine la daal affaire affaire yàlla la affaire diine la quoi du affaire suñu bakket ni ñu ko tegee ci imam daw tegee ko ci leneen te pare nañ ci lépp lu ci état maanaam bañu ñun bañu ñu ko si nañ ko may jàmmam dinañ ko bàyyi mu dellu jàngal alxuraan dafa ay a waaraateem parce que day déranger moo tax parce que day dafa dafa xàmme franc-maçon dafa xam lan mooy euh, les lois positives et les lois négatives parce que dafa gëm ni li muy jàngale muy dëgg te du ko dul ak ndox comme yeneen imaam yi nga xam ne ñu ngi seen jàmm ñu jox na ay 4 4 jox na ay 500 000 francs ñu toog di dosé nekk seen jàmm ñu leen impliqué tale ñuy jaay guddi sikkim di naxaate jox na ay passeport diplomatique ñu bàyyi état du ko toroxalaat bu ñu rayee ba ñu dee ba ñu dee na ko pare bu fekkee ñun dañ koy déranger rek bëgg nañoo rey yoon baa ngi nii bi yoon moom daf ñu rey ba ñu dee muy soog a jaar ci kaw imaam Ndao suñu kaw lay jaar ba ñu dee muy soog a téye Imam Ndao teg ko loxo ne ja bañuñu si dara loolu na ko àdduna yëpp dégg maa ko wax tey ci média bi ni ko ñëpp dégg Imam Aliou Badara alxuraan rek moo ko ñor nit ku set la sàccul politikul taxawaaluwul jàng jàng ak jàngalaate lay def xam histoire du Sénégal xam diine am culture diine bu positif xam njàngu nasaraan si xam njàngu alxuraan di ko jàngale di jàngal Sénégal di leen dimbali jàngal ay milliers de milliers de personnes alxuraan Macky Sall na yooyu incha allahu rabbi daf ñuy ray ba ñu dee man dama jëk ray man Abdou Karim ba paré soog a jot ci man daw procureur nak néna dafa def xawma lan procureur de la procureur Macky Sall bi néna dafa def appel quoi xawma pour ñom ñëpp ñu taxawaat ci kanam juge bi joxane ba légui mi ci kanam juge mi mi mi mi ngi mi ngi kantana 20 ans lañ ko tej xam nga lu ñu ko tejé parce que dafa ni mom gis na bakari chikaw ak technologie fi mu toll ñu indi preuve bu tax ñu té ñu té joxane né terroriste la teguñ ko fenn mohammed Ndiaye ñene nak ñene ñu ci kasso parce que juste dañ né dem nañ Nigéria ñëwaat amuñu benn preuve parce que ñom sax dañu tok ni xamuñu tax ñu jàpp ay Moustapha Mbaye dañ ko japp parce que dafa juggé Suisse bàyyi Suisse né day jàngi alcorane Mauritanie ñu fekk ko fa japp ko 3 ans lañ ko tej mok jabar ak mom mom mu nekk ci kasso bi jabaram top ci mom di daw Moustapha Diatta ay nit yoo xam dañ leen tej sank sen àdduna ñom la imam daw ñom mom ñom la Macky Sall woowaat na daf leen bëgg sankat mais ñun ñëpp lay sankal do te su ma ko waxee ren na Macky Sall gëm commence Macky Sall bëgg taal Sénégal mais dina ko taal bu mok rumbax su laalee bi dinañ xéx ak mom té lepp lu ñu mën nañ ko def waaw parce que neexul ba neexul mais bu dee procureur ñoom dañoo yëkkatiwaat dossier Imam Ndao bi mooy gën a wane ni Macky Sall kasara yàlla la te bëggul Sénégal jàmm man Abdou Karim maa ko wax te on est prêt à tout suñu bakken nañ ci teg billaahi Imam Ndao du ngeen ko laal mais Karim bu ñuy xool tamit processus normal la xam nga procès bu ñu ko defee euh, bu ñu defee appel faaw ñu dem cour d'appel ñu attewaat ko loolu processus normal la est-ce que di dem di woo président Macky Sall si mi nekkul loo xam ne nii dañ koo déplacé si niveau bi te ñu fa la nekkoon sànq dama la wax ni la justice amul Sénégal li tax. bu justice amul woon dinañ blanchir Imam Ndao lu tax ñu defaat appel. appel justice moo ko prévoir. laa lay expliquer c'est-à-dire xam nga blanchiment bi ñàkk pexe la ba fekk na pression bi metti na fekk na élection yi di ñëw ñoom seen lépp calcul la ñun dañ koy topp ji daw ay at imam bi feebar ci kaso bi ñu tëj ko tooñ ko génn sax Macky Sall defu ko taxaw jégalu ko defu ko. kon loolu dafa am lu muy dafa am lu muy lu muy lu muy lu muy inspiré parce que li tax ñu ci boole Macky Sall mooy ministre de l' intérieur français dafa ñëw ne France génne na tant de milliards jox ko Sénégal pour xeex lutte contre terrorisme léegi dañuy bëgg justifier xaalis boobu noonu terrorisme terrorisme soo koy xeex soo jàppee benn soo jàppee kenn te jàppoo imam amul semence il faut moom koo xam ne mooy nekk chef de gang xam nañ ñoom ni ñu créé terroriste partout dans le monde xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax moo tax ma wax Macky Sall la frère justice amul Sénégal man def naa prison gis naa li xew Sénégal ñun xam nañ ko frère justice amul Sénégal te loolu yéen ñëpp xam ngeen ko justice bu amul Sénégal am na ñuy taxawal ci dëkk bi fii liñ sàcc kan xamul lu mu toll gis nga fi ay Prodac gis nga fi ay ay ay euh, Sirédia Poste gis nga fi ay kiiw kudd gis nga fi ñu ñu jiñ ay milliards yi milliards yi yoo xamante ni ñëpp xam nañ ko ay rapport yoo xam ne moo leen épinglé Cour des comptes daf leen épinglé ñëpp gis ko mais rapport épinglé na Karim taxul na yaa def rapport bu la épinglé rek justice mooy wax ku am ko def. léegi ok kon. est-ce que nit yi dañ lay war a juger parce que mais xam nga ok amul problème je comprends amul ben problème je comprends mais li la meuna xamal dal moy fi ñu toll nii ñu gis ko ñëpp gis ko moy justice amul Sénégal te man la laa la laa lay taxaw. waaw motax motax ngay gis Alioune Sall di taxawal ba tay ci dëkk motax ngay gis yu bari ay ñaata mil ay six mille milliards yëpp nga giseen ñu nekk ci dëkk bi nice waaw ñëpp gis nañ li fi xew léegi nag ku mu neex nga gis dëgg gëmm ne gisoo ko ah amul problème léegi nag lii war a téye Imam Ndao di ko jiñ terroriste te teguñu ko fenn ah ba pare bàyyi seen i jegeñaa yeeg bàyyi seen jegeñaa yeeg bàyyi seen doom yi ñuy sàcc al bi yoo xam loo ñoom ñooy terroriser dëkk bi ñoom ñoom ñu jàpp sëriñu daara yi dóor leen ba yàq seen ne dañ koy tegg jàpp suñu maam yi tëj ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te Macky Sall est le responsable man ba may manifester di xeex ci mbedd bi loolu moo taxoon waaw Karim gis nañ ni que Sénégal. Mhm. dëkk ko wër yépp quoi qu'on puisse dire mbirum terrorisme dafa am doole ba tax mu tiital ñëpp mhm. kon yaakaaroon ni que état du Sénégal yoon la itam mu fullaal li nga xamante ne mooy xeex terrorisme. waaw mais Sénégal amul terroriste Sénégal amul terroriste Sénégal dafa jaaxal àdduna bi yëpp loolu ñëpp ko wax Sénégal est le pays boo xamante nit ñi dañuy dugg ci diine dugg bu garaaw te bal du tàkk sagar du xëy loolu ñëpp la jaaxal loolu ma gis naa ay américain ba taay taalibe baay américain yi koy wax. ay français koy wax sénégalais dañ sénégal ñëpp am xam-xam ndax bo gesso nini dacc ci Serigne Touba nga ni dacc daj ci Baye Niass nit ñi Alaaji ñëpp ñëpp ñor ci xam-xam nga dañ ni dacc ci Imam Ndaw sénégal même bo jangulé sax amna na dimension boy am ci diiné lolu yalla moko défé sénégal sénégal dina dafa am apart part entière sénégal amul terroriste dëgg ci am terroriste ñi nga xam nañ ko te xam nañ terroriste histoire fan la jóge ana la démé terroriste ñëpp xam nañ ñu mu démé tubaab yi ko créé seen xex la ñom pour diviser l'islam pour diviser dëkk yi ñi né Mali lolu moko tal français yi ñooy ñëw ne y a des terroristes y a des forces occultes créer cette affaire ñëw bu fekkee mënatuñ gérer pouvoir bi ñu jaar fa teg def leen mais Sénégal amul terroriste ah ñoom daal seen touriste xalaatuñ ko du iman doon daal